Eh, ziar sama gars yi dal leen ak jàmm si yam li xaar tega ah <laughs> tey eh, damay ñëw ak yéen si méga pare application boo xam te ni daanaka code yeeg yëpp bokkut ak benn application fii Sénégal bokkut ak benn application code yi fii la dàqee lépp fi la dàqee mooy loolu pour yéen ñu bëgg a intégrer sama Telegram eh, tijjeeguma ko mais naa ko tijji d'ici lundi quoi dinaa ko def si bio bi ku bëgg kii mën ngaa jël sama numéro sama compte bi. nga def ma message whatsapp après ma dugal la si euh, damay damay joxe foofu ay coupon telegram sama code promo nag ego 221 la ego 221 tout à magique 221 la boo ko defee di nga am promotion euh, di nga am bonus 100 pour cent waaw sama compte instant yi 3 millions 234 mille moo si nekk ma bëgg a def 4 wala waaw dama ko bëgg a def 4 euh, millions nan seetaan trash léegi ñëw na gars yi bu euh, pour yéen ñu bëgg a intégré sama kii nii instant nii li tax may teg ci crash bi match match daa amul quoi pour yéen ñu bëgg a intégré sama sama kii telegram naa ko tijji sama kii nag ego 221 la ego cent 221 ego cent 221 la. li naan essai placé <laughs> risque la de ragal du ko def eh, xam naa bu demee un quart rek dama koy jël un quart un quart demul sax placé heureusement heureusement bu placement bi demul eh, xaare placé cinq millions laa def cinq millions xool def naa ko cinquante mille léegi accepté na quoi après dama ko def cent mille bi moom day teel a toj quoi bi moom day teel a toj mais yàlla baax na en tout cas daal compte bi dina yéeg ba quatre léegi bàyyi ma jël heureusement dem na léegi xaaral def ko cent mille essayer ba xam dina jàll bi bu demee un trois rek dama koy jël ko xaalis xaalis a koy jé xaalis xaalis a koy gañe xaalis xaalis a koy gañe wax rek xaalis xaalis a bu yamee un faaw faaw compte bi dem kan millions faa faaw mu dem quatre millions ma soog a mën a bàyyi xaalis xaalis a koy gañe xaalis xaalis a koy gañe pour yéen ñu bëgg a intégrer sama kii nii telegram sama telegram euh, naa ko dugal xaalis xaalis a koy gañe xaalis xaalis a koy gañe xaalis xaalis a koy gañe sama telegram sama code promo ego 221 damay dugal foofu ay coupon damay dugal foofu ay coupon pour yéen ñi bëgg a intégré waaw xaalis xaalis a koy gañe xaalis xaalis a koy gañe xaalis xaalis a gañe maa ngi si trois millions six cent mille ndax bii day toj bii day toj mais yàlla baax na ma ko teel a récupérer bàyyi teel kaa récupérer un deux ma récupérer un deux un deux un deux un bii day teel a toj gëm naa ko waaw un deux ma récupérer maa ngi sept cent léegi bàyyi ma yokk bii baax ma yóbbu ko un cinq ñu xool faaw faaw faaw faaw faaw faaw faaw faaw faaw oh la la oh la la oh mais yàlla baax na méttiwul faaw kii yi faaw 4 millions yi mat faaw 4 millions yi mat faaw 4 millions yi mat faaw 4 millions yi mat bàyyi ma dolliwaat dolliwaat dolliwaat 300 mille baax faaw 4 millions yi mat faaw 4 millions yi mat faaw 4 millions yi mat faaw 4 millions yi mat faaw 4 millions yi mat faaw 4 millions yi mat oh fa ma jëlee la demee mais yàlla baax na de yàlla baax na de <laughs> faaw mu mat faaw mat dina mat de incha allah dina mat de dina mat de dina mat de maa ko wax de dina mat de léegi xaaral xaama dolli bii day dem oh bu yaay oh bii day dem heureusement xaaral cent trente deux cent place code deux rek bu demul deux duma ko jël bu demul deux duma ko jël demande na un million cinq cent trois millions cinq cent